boobu ñoom Issa invité woon keroog mooy tey ay xale ñu ngi ci kaso bi mais c'est des familles qui sont en prison en réalité. Moussa le même Oustaz Assane Seck je crois que si sunu évolution société. Mhm. c'est-à-dire surtout ci wàllu politique. Mhm. je crois que cette partie de not histoire. Mhm. dañ ko war a gaaw a enterrer. eu des affrontements yu gën a yi. c'est-à-dire politiquement je parle hein. Mm-hmm. yu gënoon metti lii xew. y a eu des adversités yi nga xam ne euh, kenn mënul wax nu mu dem mais mu suñu egg à ce niveau. Euh, je di souvent que. Mm-hmm. il a fallu quelque part qu'on convoque ce qu'on appelle la folie étatique pour mën a egg à ce niveau et je suis vraiment désolé de le dire. Mmh. on a rendu un très mauvais service au président de la République. Euh, c'est vrai on me dira que euh, def na lii ci mandaam def na lii ci mandaam et tout mm-hmm. mais néanmoins lii ci image am moom waxuma Sénégal sax mais moom ci image am en tant que président de la République sortant mm-hmm. dafa doon la nga xam ne da koy gàllankoor ilaa yow mi diine est-ce qu'il ne l'a pas voulu je sais pas mais je crois que encore il le temps il le temps bu dee il a de se rectifier et de remettre les choses à l'ordre Moussa Ba affaire bi mm-hmm. wax nga ko des famille sànq bi may ñëwul dama ñëw juste ci bunt bi am ñu ma ñu ma fa fekk. ci wal fa di ma laaj. Hmm. man leen non malheureusement man yéegaguma te Moustapha gisuma otom donc exeggul ñu ne ma bon voilà ñun suñu problème mooy lii. Hmm. man leen expliquer ñu wax ma. alors il s'agit d'un jeune travailleur. Hmm. dëkk fii Grand Yoff. Euh, ñu naan xaw ma nan ñing euh, je sais pas j'ai plus le no attends j'ai noté le nom. ñing sa son nom de famille c'est ñing c'est mu ngi doon liggéey ay ay ay BD. Mhm. Euh, Léon ñing mhm, ay BD ay BD. Mhm. alors famille na ñun fi mu nekk nii ñu ngi dëkk fii Grand Yoff jabaram ak ah, cousin ak ah, doom. à cause des pluies dañu war a bouger parce que fa ñu nekk mënatuñ fa dekk. ndox mi jël na ko ndox mi pratiquement jël na ko. mais amuñu sax moyen bu ñuy utee néeg feneen. Léon Gning boobu kes ce la a fait son seul tort c'est d'avoir fait un poste mm-hmm. en solidarité à Ousmane Sonko bi ñu ko arrêté ñu jox ko demande d'explication au niveau de AIBD mm-hmm. doyul sur la base de bracelet bu mu takk mm-hmm. bracelet Pastef yooyu nañ ko ci arrêté placé ko sous mandat de dépôt mu ngi ci kaso bi mu ngi ci kaso bi donc boo jëlee le cas de ce Léon Gning c'est sa famille qui est venue ici qui m'en a parlé effectivement j'ai suivi cette affaire parce que Dame Mbodj mos naa ko dégg benn jour mu wax ci. Mhm. Euh, j'ai ami également à AIBD je l'ai je je lui ai la question mu ne ma effectivement ça s'est passé comme ça on lui justement donné une demande d'explication mais au-delà de euh, Léon Gningue bi nga xam ne c'est un cas particulier mhm. Moussa Ba mais y'a des cas particuliers en fait ñi ngi fàttali ko ki nga xamante ne dañ ko jàpp ni moom moo bëggoon assassiner Ousmane Sonko Ousmane Sonko nday mbil gi ni man kii moom laa gën a wóolu sax sama loxo nday joor ñu ni kii euh, aussi Ousmane Sonko amul benn substance boo xamante ni dafa dafa dafa dafa dafa dangereux ci moom bu ñu ko sotti. oui te pourtant ko mi ngi ci biir kaso bi. yarga la mi ngi ci kaso ba léegi. mi ngi ci kaso ba léegi donc. allez-y donc tey jii au-delà de cette famille. Hmm. au de Léon il y a d'autres familles yi nga xam ne. il suffit nga dem Rebeuss. Hmm. wala nga dem Camp Pénal wala nga dem Cap Manuel wala nga dem Sébikotane pour voir un peu lii nga xam ne moom la famille détenus yi prévenus yi di subir. au-delà des famille les avocats cest à en temps normal sax en temps normal ñun Sénégal suñu nombre d'avocats yu ñu am mënul régler problème benn sénégalais en temps normal c'est-à-dire bu del woon ces détenus politique et tout ça en temps normal le nombre d'avocats et de magistrats yi ñu am Sénégal mënuñu régler le problème d'une bonne administration de la justice au Sénégal alors ñuy jël ay quelque mille cinq cent xaw ma mille six cent mille huit cent qu'on appelle détenu politique dugal leen ci kaso bi yokku leen fa ba nga xam ne ces avocats se retrouvent avec un surplus de travail. les avocats bien sûr. les magistrats se retrouvent avec un surplus de travail man dama dem keroog Cap Cap Manuel doon am ku ma seeti mais j'ai vu un avocat maître Moussa Sarr pour ne pas le citer. mais mu ne ma mu ne ma maa ngi fi depuis 9 heures ba léegi je parviens pas à voir mes deux mes clients. et il faisait 11 heures et man maa ngi fa jógee ay quinze heures donc pour te dire un peu cette situation là je di que c'est quelque chose bi nga xam ne aujourd'hui mm-hmm. kii di président de la République et c'est un cri c'est un c'est, cri hein, que je lance mm-hmm. c'est-à-dire président de la République il se doit mm-hmm. tey jii de mettre fin à tout ça benn société civile bi opposition bi notamment PASTEF la société civile doit également tendre la main pour qu'on trouve une solution à ces problèmes parce que ça peut pas être c'est vrai que c'est la folie d'un État mmh. qui a procédé à toutes ces arrestations moi je ne dirais pas la justice vraiment la justice on les a donné des dossiers des dossiers ils les ont gérés dossiers yooyu c'est ce qu'on a son li ñuy wax fii tout le temps mhm. mooy les hyper pouvoirs du procureur de la République am na ñi xam ne le juge est obligatoirement tenu de place sous mandat de dépôt donc donc, donc cette folie plaît, du pouvoir là moi j'appelle ça une folie du pouvoir c'est <laughs> cette folie du pouvoir là qu'il faut que le président mhm. essaye de régler te boobu pour mu régler ko il mhm. faut que l'opposition mhm. Pastef en particulier il faut que la société civile c'est-à-dire impliqué il faut que ñoom ñëpp qu'ils mettent le Sénégal jël Sénégal comme référentiel nekk que y a que le Sénégal qui va en bénéficier. Ce n'est ni Pastef qui va gagner, ce n'est ni président Macky Sall ou l'APR qui va gagner, mhm. ce n'est ni la justice, mais que le Sénégal en sorte grandi de cette épreuve là. Samba dinañu wax léegi euh, lu ci xam mais euh, Oumar Gueye euh, sooy déglu li Issa Tine expliqué yëpp Pape Sané wax ko. Euh, au-delà de des appartenances politiques euh, man loolu moo may sensibiliser souvent su may wax ci ces parce que c'est des jeunes qui t'appellent euh, pour comme li Pape wax sànq di la sensibiliser sur le cas de certaines personnes am na ñu certainement ñoo ci dëkkal sa quartier gi demee noonu est-ce que arrivé wuñu à un moment où comme dit Pape Sané le président de la République doit trouver une solution euh, moom mi nga xam ne mooy le le garant de la sécurité de la paix dans ce